fi mu maa ngi koy nuyu. man de li ma koy ñaanal man xam naa ko. <laughs> xam nga feebaru yuri yuri jor keef. <laughs> mooy eh. boobu nga xam ne bu la dalee doo toog doo taxaw da ngay ñàkk tooy xepp da ngay naqari deret <laughs> yaa ngi dégg foo toll yow ci urgence rek ngay ne ci urgence rek ngay ne te ki ko sàcc yàlla bu mu doon ku dër ndax bu dëree balaa laaj wàllu public bañ ko koy désigner eh. boobu fekk na nattu dal na ko ba noppi kon kii loo sàcc sa téléphone bii. ne ko te muy dëgg yàlla naa amee jàngoro yi yuri yuri jot <laughs> keef. muy noonu. Ah, waaw kay en tout cas Mima Inde euh, Bamba Diop itam soldaaru Pastef euh, Isaac Diagne. Sadikh Ngom yéen ñëpp en tout cas yi nga xam ne yéen a ngi suivre Sans Limites TV actuellement ci Café euh, Actu ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax. di leen ne voilà on est là pour vous def li nga xamante ni en tout cas moom ngeen di xaar si ñun. et tout à l'heure ñu tàmbali li nga xam ne. ayca yow kay laal nga 6000 fu mu nekk nii yaa bismillah ma ne ko baax ay ca ñu dem donc Thiam xam naa rek ñu daal di tàmbali ak fi nga xamante ni mooy euh, quotidien Le Soleil Le Soleil nag daal di ñëw. wax ci li nga xamante ni mooy direction des affaires religieuses relation entre état et pouvoir spirituel Ndiassane bénit la démarche du président donc nag moom la président de la république euh, tabb na li nga xamante ni mooy ki ki nga xam ne mooy jiite direction des affaires religieuses ba tax na rek euh, itam na mu ko doxalee ci këru diine yëpp daal dina dem fële sa Ndiassane rencontre ki nga xamante ni mooy xalif euh, bu Ndiassane waxtaan ak moom ci li loolu mais itam ci taxawaayam ci li nga xamante ni mooy dëkkub Ndiassane ba tax na rek moom xalif bi comme à bénir mais itamit rafetlu bu baax a baax démarche bi nga xam ne jël na ko parce que depuis le début gis nañu ne il a toujours été en concertation avec ces familles religieuses là impliqué leen ci lépp li nga xamante ni mu ngi koy daal di doxal ci réew mi ba tax na rek ñoom euh, waa Ndiassane comme Tivaouane comme Touba daal dinañu rafetlu bu baax a baax taxawaay bi nga xamante ni moom le euh, président de la République daal na ko am à euh, vis-à-vis de des familles religieuses scrutin législatif du 17 novembre prochain la DGE fixe les dates clés du processus donc nag fi mu toll nii comme ni ñu ko waxee démb DGE daal dina fixé date yi nga xamante ni en tout cas moo ñeel euh, organisation élection législative yi nga xam ne ñu ngi daal di ñëw ba tax na rek fi mu toll ni amatul dara loo xamante ni sénégalais war nañ cee mën a jiixi jaaxa nañu jàpp ne rek euh, actuellement li nga xamante ni mooy date yi la daal dinañ koy fixé rentrée des classes 2024 2025 le premier ministre trace les grandes lignes donc nag moom premier ministre avec tous les ministres euh, concernés daal dinañ daje amal ab waxtaan li nga xamante ni moo ñeel rentrée des bi nga xam ne léegi mu daal di ñëw en octobre bi ñu waxtaanee ci loolu nag am na ay accord ak i mesures yoo xamante ni daal nañ koy jël xëy na rek dinañ ci ñëw plus en détail si kanam am na yeneen yéenekaay yoo xam ne def nañ ko à la une su ko defee rek ñu daal di leen koy mën a partager bu baax a baax dakaar et Londres veulent intensifier leur coopération mu nekk na coopération boo xamante nii <coughs> en tout cas ñu ngi koy xaar ci partenariat économique et commercial entre Londres ak Dakar pour ñu gën a ñoŋal diggante bi mais tamit jàppaloo bu baax a baax ku ci nekk ci li nga xamante ni yaa ngi ci sa daal di ñëw indil la doole bu baax a baax ñu dem bés bi le jour ñëw itam ci li nga xamante ni mooy transparence des élections a-t-elle affûté armes Manif le 27 septembre à la place de la Nation. Pour la première fois depuis 1993, des partis d'opposition sont exclus de l'élaboration du processus. loolu nag muy kàddu bi nga xamante ni ñoom waa ATEL daal dinañ ko yëkkati ci seen conférence de presse bi nga xamante tenir nañ ko ñoom nag ñu nekk euh, en général ñi nga xamante ni bokkoon nañ ci présidentielle yi ñu génn euh, actuellement constitué wu ci li nga xamante ni mooy ATEL jàpp nañu ne nag processus électoral bi nga xamante ni moo war a ci li nga xamante ni mooy législative bu 17 novembre yi doonul processus bu baax. parce que li ñu gis mooy dañ leen exclure ci li nga xamante ni en tout cas mooy euh, processus bi ba tax na rek ñoom ñu daal di taxaw artu waajal le 27 septembre nag nee nañu dañuy def ab manifestation place de la nation pour rek waxtaanee la nga xamante ni wala boog wax sénégalais li nga xamante ni en tout cas du dëgg du yoon ci ñoom seen jàpp-jàpp ba tax na rek ñu ni le président de la république prétend décider seul une violation flagrante du protocole additionnel de la CEDEAO donc nag ñoom dañoo jàpp ni li nga xam ne mooy protocole additionnel de la CEDEAO le président de la République daalu ko respecté parce que na mu doxalee ci organisation élection yi pour ñoom du dëgg du yoon ndaxte dañu leen waroon laaj seen xalaat mais tamit boole leen ci bile procédure processus loolee nag mooy kàddu yi nga xamante ni ñoom waa ATEL di dinañ koy amal. Mm-hmm. le ministre de l'intérieur convoque une réunion avec les acteurs samedi ba tax na ne le ministre de l'intérieur sous l'impulsion de la du la République samedi daal di rencontrer en tout cas ñëpp ñi nga xamante ni bokk nañ ci classe politique bi mais itamit bokk suñu ñu yi organiser élection yi le suba lay doon fii euh, incha allahu rabbi ñu daal di waxtaanee lu ñeel euh, bile euh, processus électoral mm-hmm. réunion de sur la rentrée scolaire Sonko ne lâche pas le voile L'État a montre de beaucoup de faiblesses. Ce Sénégal aura décidé, c'est ce qui se fera. donc nag moom ci réunion bi ñu wax léegi nga xam ne tenir na ko avec le ministre concerné et les ministres yi nga xamante dañuy jàpp ci li nga xam ne mooy wàllum l'école bi de euh, moom le premier ministre daal dina taxaw artu bu baax a baax a baax ci taxawaayu état neen lépp loo xamante ni décision bu ñu jël la pour mën a euh, doxal école bi décision bu ñu jël la pour école bi mën a jaar yoon amul dara loo xamante dinañ ko tegg ci seen mesure yooyu le ba tax na rek la muy xaar ci ministre bu ne moo ñu daal di concentré wu sur l'essentiel pour mën a permettre ndaw ñu daal di euh, jàng dans de très su ko defee jafe-jafe problème yi nga xam ne tàmmoon nañ ko di gis fii école sénégalaise dootuñ ko fi gis mhm. qu'aucun élève ne soit exclu y compris dans les écoles des étrangers wàllum voile bi nga xam ne déggoon nañ ko fii mu nekkoon coow boo xamante ni en tout cas yëkkati ko woon keroog yàggul dara fii ci euh, Sénégal ba tax na rek moom àdduwaat na ci kàddu yooyu nee na effectivement. la ma ca la ca la ca waxaat effectivement parce que la waxoon mooy euh, du yoon nekk fii Sénégal di dàkk ay doomi Sénégal parce que dañoo sol li nga xamante ni en tout cas mooy voile. Mm. nee na itamit loolu daf koy dëggal donc bépp décision boo xamante ni nguur gi jël na ko dañ koy euh, obligatoirement dañ koy dal di appliquer et peu importe école bu mu mënti doon donc képp koo xamante ni da daal di sol voile dugg ci biir école amul kenn koo xamante ni daal war na am droit génnee la ci boobule euh, ci boobule école un arrêté au plus tard le 27 septembre pour conformer les règlements intérieurs des écoles à la constitution donc nag fi mu toll nii règlement intérieur u école yi naam sax tàmmoon nañu gis ne IEF ak IA ñoo ko daan def mais fi mu toll nii le ministre euh, le premier ministre daal dina ne euh, le 27 septembre dinañ génne arrêté boo xamante ni règlement intérieur dañ koy daal di conformer euh, kii ne si li nga xamante ni mooy constitution ba nga xamante ni obligation lay doon pour képp koo xamante ni yor nga école fii ci Sénégal nga tënku ci charte yi nga xamante ni le gouvernement du Sénégal daal dina koy teg pour que élèves yi mën a jàng dans de très bonnes conditions en tout cas kaddu yooyu noonu bokk na ci li nga xamante ni war nañ ko mën a retenir ci réunion bi nga xamante ni def nañ ko moom avec les ministres concernés renflouement du euh, jola justice orphelin les familles des victimes interpellent le chef de l'État ñu fàttaliku nag batalo jola ci ay fan yu gàtt rek dinañ defaat li nga xam ne mooy commémoration bi ba tax na rek euh, am na ay famille yoo xam ne ba tey ñu ngi interpeller état bi ci taxawaay bi nga xamante ni war nañ ko am vis-à-vis euh, de ñoom. À Ndiassane président explique le choix de Jim Dramé pourquoi j'ai préféré préféré ne pas mettre un doomu daara de Pastef. donc nag fii mu ngi expliquer parce que ñu bëri ñu ngi doon xaar euh, li nga xamante ni mooy direction des affaires religieuses yi mu teg fa koo xamante ni amaana ci modab lay génnee muy Pastef li euh, nga xamante ni ñooy gérer wàllum doomu daara mais il n'a pas préféré teg ko mais dafa teg koo xam ne il est neutre te je pense que à Tivaouane waxoon na ko ci kàddu yi mu yëkkati woon mooy ki ma fay teg du doon koo xam ne ràññee nañ ko ci politique mais koo xamante ni ci xam-xam lañ ko xamee ak jàng ak jàngale donc nii la ko yëkkatee woon te effectivement c'est ce moo tax rek mu daal di expliquer lan moo tax daadul teg ki nga xamante ni en tout cas euh, bokk na ci biir euh, modab boobule nga xam ne euh, instance politique la te ñu fàttaliku itamit moom le président de la république waxoon na ni dafa bëgg tëddee njaaxanaay ba nga xamante ni lépp lu muy def amul kenn koo xamante ni nga sentir ne kii dafa fare boor wala dafa jeng donc loolu itam mu nekk mbir boo xam ne dafay dëggal en tout cas kaddu yi nga xamante ni daal woon na ko yëkkati quatrième décès dans les inondations de Touba un enfant de quatre ans tué par l'affaissement d'un mur démb nag malheureusement. ñu démb ñu gis xale bu mm-hmm. ndaw boo xamante ni mur dafa daal di daanu ci kawam euh, fële ca Touba ci li nga xam ne mooy inondation mu nekk lu métti donc le bilan est passé absolument actuellement nekkatul deux nekkatul trois mais mu nekk ci quatre. et c'est vraiment domage en tout cas dañu leen di ñaanal yàlla yërëm leen xare leen aljana mais itamit mu teggil leen nattu bi nga xamante ni euh, moo nekk foofulee ca Touba ndaxte nag doon na mbir boo xamante ni. Mm. actuellement euh, état bi war na cee concentré bu baax a baax. Mm-hmm. trouver des solutions pourtant ñu ngi si sax j'ai vu le ministre Cheikh Tidiane Dièye faire un point. absolument mu ngi fa woon démb euh, voilà liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy def foofulee ca Touba c'est dommage. Mm-hmm. c'est dommage même même aussi. mais yàlla baax na yàlla bëri na sutura plus l'appui du xalif. Mhm. donc euh, xëy na yàlla baax na. Mhm. ndox ba fa sotteeku moo moo moo bëri rek. si si euh, bëri na trop nag. macha allah falloir trouver pour at yii di ñëw incha allah. Mhm. lu ni mel ñu ñu ñu ñu régler ko ñu saafara ko une bonne fois pour toutes. c'est vrai en tout cas xam nañu nguur bi moom munu ko régler tey tey tey tey mais on espère quand même que leurs actions permettra dans les années à venir ñu daal di apporter des solutions idoines face à ce problème la ñu dem ci beneen. Aïcha ginnaaw bés bi le jour le quotidien. ñoo dem ci le quotidien yéenekaay mu ñëwaat ci li nga xamante ni mooy l'éducation préparation de la rentrée l'État remet le voile. Le ministre de l'Éducation doit soumettre un arrêté qui mais en conformité les règlements intérieurs des établissements à la constitution mooy li ma yëkkati léegi rek ci ay kàddu li nga xamante ni mooy règlement intérieur yi ñeel euh, fonctionnement wu école yi le moom le ministre de l' éducation dina daal di génne arrêté boo xamante ni dafay daal di méngale réglement yooyu le ak constitution bi ba nga xamante ni day doon obligation pour képp koo xamante ni yor nga ab euh, école nga daal di tënku ci charte yi nga xamante ni ñoom ministre yi avec le premier ministre du Sénégal daal dinañ koy xaatim su ko defee rek problème yi ñu nga xamante ni daan nañ ko miin muy wàllum voile bi yenn exclusion yeeg yu ni mel te jaarut yoon en tout cas ñu jàpp jaarul yoon mm-hmm. dootu fi amati te loolu itam mu nekk mbir moo xamante ni daal waxtaanee nañ ko ci réunion de préparation de la rentrée scolaire bi nga xamante ni c'est dans dans dans quelques jours mu nekk nag info de taille boo xamante ni euh, daal di nañ koy indil le quotidien absence de concertation pour les élections l'opposition dans la rue le 27 donc nag atel nee dafay daal di tenir ab manifestation le 27 Euh, mu nekk nag mbir moo xamante ni info de taille la en tout cas ñoom atal nag wax naa ko tout ñu ràññee leen bu baax ci ay candidats yoo xamante ni candidat malheureux ci élection yi nga xam ne la ñu daal di génn yàggul dara mars 2024 ba tax na rek ñoom seen taxawaay dañu jàpp ni euh, le président de la république namu tëggee wala boog na mu organiser élection anticipée yi nii doonul yoon ba tax na rek ñoom nee nañ dañuy taxaw jàmmarloo face à cette euh, en tout cas injustice entre guillemets pour daal di wax ak sénégalais loolu mooy mbir mi nga xamante ni en tout cas daal di nañ koy yëkkati le quotidien wax ak ñun itam ci processus électoral bi la ne des législatives en fast track donc nag loolu mooy impression bi nga xamante ni euh, le quotidien daal dina koy indi concernant législatif yi la parce que gis nañu ne euh, choix yeeg muy date beeg en tout cas organisation bi tout a été fait à la lettre mais aussi euh, très rapidement parce que dès l'instant que ñu annoncé ko automatiquement DGE ak ñi nga xam ne ñooy gérer Sénat ak yu ni mel ñëpp teg nañu mhm. en tout cas tout le dispositif nécessaire tànn date yeeg tous les détails en tout cas loolee itam ñu jàpp ne rek en mode fast track la ba tax na ñoom quotidien di daal di si wax bu baax a baax itam gestion des inondations Amadou Ba plonge dans le débat mhm. moom nag euh, malgré son mutisme depuis euh, li nga xam ne mooy élection yi ba keroog ba muy waxtaanee li nga xam ne mooy nouvelle responsabilité tey dugg na ci débat politique bi la daal di wax ci li nga xamante ni en tout cas mooy wàllum inondation yi peut-être nag. xam naa bu dee plongeon la tamit ñàkkul na ci petit bassin la ko defee. te muy te muy dëgg. parce que parce que parce la ma jaaxal mooy <laughs> euh, je pense que bu fekkee ni il a des solutions à donner je pense que tolloon na ci posture bu mu mën appliquer ces dites solutions là sincèrement. donc tey nag ñu ñëw bu fii muy daal di ci àddu espérons tout simplement que day massawu mais tamit jéggalu sénégalais parce li li li xew parce que on se souvient très bien il a été premier ministre il a été en tout cas euh, koo xamante ni bokkoon na ci gouvernement bi fi nekk ba problème yi nga xamante moo fi nekk actuellement malheureusement ça résulte de leur travail donc ñu ngi doon di xaar daal en tout cas yan détail lay daal di indi ci mbir mi nga xamante mooy wàllum inondation yi la ñu dem ci beneen réew mi quotidien réew mi ñëw le euh, septembre wax itam ci li nga xamante ni mooy atel atel nag dafa annoncé une manifestation. gaa yaa ngi laaj ci définition waaye man GMI yi ma gis nii est-ce que dina ko jar tamit. <laughs> dama gisul sax pourquoi ak lu jaral photo photo GMI bi. c'est ça c'est ça parce euh, que ak de police bii nga xam ça nous rappelle plus. des mauvais mauvais souvenirs qu'autre chose. C'est ça, c'est ça. Je pense que sur Il y a une manifestation, oui, mais euh, après, si elle est autorisée, elle sera juste encadrée, c'est tout. Absolument, absolument. Voilà. Ce choix-là, je pense pas que ça soit vraiment approprié pour li nga xamante ni mooy manifestation bi la mais quand même nañu jàpp ni rek le 27 septembre à la place de la nation ñi nga xamante ni ñooy euh, atel dinañ amal ab manifestation pour wane seen mécontentement wane seen bañ a ànd wane aussi seen désaccord ci ni nga xamante ni la ñu organiser élection yi la nga xam ne jàpp nañu ne dañu leen ci waroon a impliqué ñoom waa atel ba tax na rek le 27 septembre on peut s'attendre à une manifestation maintenant dina dégénérer ou on ne on ne sait pas pour le mais li ñu mën a jàpp rek mooy bu fekkee ni bu fekkee ni dafay doon euh, manifestation boo xamante ni dañ koy autoriser je pense pas que mhm. dina nécessiter quand même ay GMI ak ay Cobra di taxaw Interdiction du port de voile, encore une fois, Ousmane Sonko revient à la charge et demande à ce qu'aucun élève ne soit exclu. donc la mu waxoon démb wax ko barki démb loolu la dëggalaat tey moom Ousmane Sonko euh, en tout cas comme dans ses habitudes on a l'habitude de savoir que moom moom nii lay daal di doxee ba tax na rek li nga xamante ni waxoon na ko ci voile yi dëggal na ko mais yamu ci dina daal di génneeb arrêté boo xamante ni mooy Euh, firndeel li nga xamante ni mooy gis-gisam si port euh, de voile douane itam saisie de médicaments et de et de devises d'une contre de plus de six cent vingt millions. douane nag fan yi ñu ngi def liggéey bu am solo xawma ndax bàyyi ngeen ci xel. oui depuis un moment d'ailleurs. depuis euh, 3 mois def ay saisies yu yu doy waar 3 4 mois. douane mu ngi def ay saisies yu. extraordinaire je sais pas ndax bàyyi ngeen ci xelam déet. waaw mais. mu ngi def. Mhm. mu ngi def liggéey ba mu solo. Mhm. vraiment parce que mhm. yii nga xamante ni ay sinébar la ak ay médicaments yu baaxul. bu duggoon ci dëkk bi saisie de drogue yeeg yu ni mel ci dëkk bi li mu fi mën a yàq mu ëpp bu baax a baax. li mu mm. fiy mën a def. donc bon dañu leen di féliciter rek di espérer que effectivement dinañ ko mën a traité aussi avec euh, ni mu waree ba mu bañ a circuler ci biir ci biir ci biir dëkk bi. le président Mbagnick Diop à Paris loolu itam beneen xibaar la boo xam ne réew mi quotidien daal dina ko indi ñu dem. source a ñëw wax ak ñun ci li nga xamante ni mooy euh, euh, Jérôme Bandiaky arrêté par la DIC pour euh, nécessité d'enquête son passeport diplomatique son logement de fonction sa dernière prestation à la rencontre politique d'Amadou Ba au King Palace l'APR dans la ligne de mire du dio Diomaye Sonko donc nag source a jàpp na ni li nga xam ne mooy arrestation euh, Mbagnick euh, Jérôme Bandiaky bile dafa doon euh, mooy sniper voilà sniper dafa jàpp ni rek APR la ñuy daal di xoqatal si je peux dire ainsi parce que bu ma liiree titre bi noonu laa ko mën a jàppee mais en tout cas dañ jàpp ni rek moom Jérôme Bandiaky actuellement mu ngi ci loxoy yoon te pour mhm. nécessaire d'enquête ñu ngi koy poser question nit ñi nag ñu ngi doon naan pour am na mhm. lu ñu ci doon boole mais je pense que effectivement ce n'est parce que li tax dëggantaan ñu daal di koy jàpp rek mooy xamante ni mooy passeport diplomatique beeg yu ni mel te ñu ngi waxtaan ak moom moom itam mu ngi indi ay ay tontu attendons de voir la justice daal di def liggéeyam su ko defee rek ñu daal di ci euh, sori. concertation supposée avec des organisations de la société civile avant l'élaboration du nouveau euh, référentiel des politiques publiques les AP de Sonko Aliou Tine président de Africa Jom Center en réalité même quand on critique le projet c'est une façon de se l'approprier Or, je pense que la pire des solutions au Sénégal aujourd'hui c'est l'exclusion donc ñoom nag euh, muy moom muy ñeneen ñi nga xamante ni en tout cas fi mu ne nii ay frustré lañ leen jàppee parce que quoi parce que li nga xamante ni mooy nouveau référentiel des politiques publiques euh, moom Ousmane Sonko avec euh, le président Bassirou Diomaye Faye naam ñu ngi ciy liggéey mais ñàkkul ñu ngi ciy waxtaanal ci ñoo xam ne société civile bi la ñu la ñu bokk loolee itam la muy wane rek mooy dëkk mënoo ko liggéey yow kese et malheureusement daf si am ñoo xamante ni peut-être dañoo gisul seen bopp moo war a rek yile kàddu ba tax na ñu ne il faut vraiment une méthode inclusive et participative qui à tout le monde à la fois de revendiquer le succès et les échecs interpellé Babacar Fall secrétaire général du GRADEC lâche il faut essayer de vous rapprocher des autres tels que Moundiaye Cissé pour voir pour notre part on n'a pas été consulté très honnêtement donc ñoom ñi ñëpp daal nañ jàpp ne rek la leen metti mooy le fait que waxtaanu ak ñoom euh, ci ni nga xam ne la ñu bëgg a yore réew mi waaye nag yaakaar naa nit ki indi projet am gis-gisam euh, moo gën a xam ni ñi nga xamante ni soxla na leen pour euh, ñu daal di ko ci xalaatal mais dans tous les cas daal nañu jàpp ni rek ñoom ñu ngi daal di préparer boobu les référentiel te fi mu toll nii sax dégg nañu ne la ca des bëreetul ndax démb kii di Ngagne Demba Touré mosal na si tuuti sénégalais ju teg pour référentiel boobule donc nañu jàpp ne fi mu toll nii daal yéex yàgg dans quelques jours dinañu am tous les détails concernant boobule référentiel pour exiger du gouvernement la tenue comme euh, dellul voilà pour exiger le, du gouvernement la tenue des concertations habituelles avant les élections législatives l'assaut de l'ATEL contre le projet donc comme noonu ATEL daal daal di ñu jugaat ñëwati na encore une fois dikk na ma ne ko ATEL ñëwati na ATEL mu ngi attaqué li neex ci mbir mi waaw lu neex ci mbir mi <laughs> bi ndax gis ngeen ko ah waa ATEL dañ leen noonu naroon a àtte xuloo kan ah. bi dugg leen TikTok di ngeen ko gis tapé leen euh, atel vous faire. waa atel dañ leen naroon a. gars yi toog ci biti ñooy wax ak gars yi di joxoñ mm, waaw werante bu neex boobu boobu xaaf lañ doon waxal. yee loolu loolu bàyyil ba nga ñëw toog nga léegi nga kii barki sama nijaay maa la wax lii xuloo bu saf sax xuloo <laughs> bu saf noo démb man man dama toog di suba laa ko seetaan ah. ce matin avant may ñëw nii nii nii nii laa ko seetaan. waaye atel waaye buñ leen teel a atte nag tamit buñ leen teel atel atte leen waaw de buñ leen teel a ah, atte dañ leen atel lu mu signifié alliance la pour la transparence des élections mooy atel ah nañ leen atte bokk <laughs> après l'ex DG du COUD Maguette Sène Aly Ngouille de créer son propre parti politique Benno Bokk Yaakaar marche vers les cimetières donc nag euh, source a itamit daal dina gis njort wala boog yëg ni Benno Bokk Yaakaar actuellement tas na ba tax na rek mu ne marche vers les cimetières jàpp na ni fi mu toll nii ci njeexitalam la nekk wala boog ñu gën ko kii rek ne ci sukuraat la nekk un Kaffrine blessé enregistré dans les inondations mooy li wax léegi rek xale bi nga xamante ni malheureusement daal dina perdre la vie euh, bi mur bi daanoo kawam ñuy ñaan yàlla rek daal di leen yërëm ñoom ñëpp xare leen aljana te teggi nattu bi nga xamante ni moo xew fële ca Touba ñu dem. lii quotidien ñëw wax ak ñun ci élection législative anticipée ATEL dénonce un putsch électoral waaw lii nag mooy quintessence su seen discussion démb ñoom dañu jàpp ni. Euh, putsch yi ñu daal di dégg fële ca Mali yi ñuy dégg fële ca Niger ñuy dégg fële ca Burkina ak feneen ak feneen putsch boobu Sénégal fii am na fi waaye nag dans le cadre des élections maanaam y a un forcing boo xamante ni ce n'est pas du tout normal bu ñu def ci wàllum élection yi ba tax na ñu ni l'Alliance pour la transparence des élections se dit exclue du processus électorale donc ñoom dañoo jàpp ni rek la nga xam ne mooy préparation wu élection yi leen dañu leen daal di euh, ne ca tegee de côté mu doon loo xam ne métti na leen ba tax na elle annonce un rassemblement le 27 septembre un plan d'action décliné en quatre points pour protéger et sauvegarder les acquis démocratiques donc nag ñoom dañoo jàpp ni fi mu toll nii nii nii nii nii nguuru le président Bassirou Diomaye Faye dañu daal di salfaañee li nga xamante ni mooy démocratie li ñuy def du dëgg du yoon en tout cas loolu mooy kaddu yi nga xamante ni ñoom waa ATEL euh, wax nañu ko concernant li nga xam ne mooy doxalinu wala boog taxawaayu le président de la république ci organisation élection yi nga xamante ni mu ngi daal di ñëw euh, ba tax na le 27 dinañ def manifestation une tournée aussi prévue auprès des autorités religieuses et traditionnelles du pays maanaam dañuy dem seeti ñi nga xamante ni ñooy kilifa yi euh, boole boole laa ko mën a tuddee dañuy boole ci nguur gi. ci kilifa yi ne leen ah ñii kat ngeen dénk réew mi dañuy daal di salfaañee réew mi ba tax na rek lii ak lii ak lii donc ñu ngi leen di xaar bés bu ñuy dem boole ji rek nit ñu ko yëgal comme ça ñun tamit ñu mën a partager xibaar bu baax a baax <laughs> muy noonu. un an de l'AS le Mali emprunte un chemin sinueux donc nag AS suñ toll nii euh, ñu ngi daal di damal seen bopp Mali nag mu ngi daal di voilà kërti kërti mais bon. espérons tout simplement que dafay doon mbir moo xam ne dina leen njik voilà dinañ ci mën a génn Euh, couverture médiatique des élections législatives anticipées CNRA fixe les règles du jeu CNRA nag fi mu toll nii négam ñu ngi euh, dëgmal li nga xam ne mooy élection yi te campagne itam presse bi daf cee am solo bu baax a baax ndaxte képp kuy dem comme candidat wala boog bépp liste buy dem di campagne yi di nga ànd ak euh, une certaine presse ba tax na rek CNRA daal dina jóg artu ci li nga xam ne naka la ñuy àndee ci couverture boobule mais tamit fan ak fan la bi mën a yem ci taxawaay bi ñu war a am en tout cas ci li nga xamante ni mooy euh, mbir mi rentrée scolaire 2024-2025 une batterie de trente mesures prises par le gouvernement parce que tout à l'heure dañu wax rek ci li nga xamante ni mooy arrêté bi ñuy daal di xaatim concernant règlement intérieur école yi mais nañu jàpp ni am na yeneen vingt neuf mesures yoo xamante ni état du Sénégal en l'occurrence avec le premier ministre du Sénégal jël nañ ko teg ko pour mën a stabiliser en tout cas année scolaire bi di ñëw mais tamit pour mën a ñongal li nga xamante ni mooy njàng jàngale bi ba problème yi ñu daan seetlu ay at ci ginnaaw ak daaw doonul ay problème yoo xamante ni dina am fii ci euh, Sénégal ñu dem libération ñëw euh, wax ak ñun ci li nga xamante ni mooy redressement fiscal acculé des ATD du fisc Woodside consigne quarante virgule zéro soixante et un milliards de francs fa gannaaw nag ba ñu toppee Woodside ci concernant redressement fiscal coow li newoon cour ku nekk daal di génn moom Woodside les garanties qui couvrent la créance fiscale réclamée par les impôts déposés à Citibank Sénégal mmh. à la CDC qui a délivré la quittance numéro euh, numéro yi nag bëri na lool mu ngi noon donc juste pour vous dire que <laughs> du ma du ma ci sonn ay chiffres à plusieurs chiffres mu ngi noonu à plusieurs chiffres jàpp 35 57 la jeexee mhm. donc Woodside gannaaw nag ba ñu daal di leen am na loo xamante ni jot nañ ko daal di déposé à de quarante virgule zéro soixante et un milliards de francs fa mhm. kon nag ñi jaroon nañoo topp. Mhm. waaw te je pense que c'est c'est pas le cas uniquement de Woodside ndax lii bu fekkee ni effectivement lu am na. Mhm. bu ñu ko defee ci yeneen ñaar ba ñetti kii. wax dëgg yàlla mën nañu indi ay saafara ci problème yu bëri ci ci réew mi <coughs> te malheureusement lii moo tënkoon Sénégal ba tax la plupart en tout cas dawuñu la plupart gisuñu seen bopp ci réew mi ndax redressement fiscal bi la nga xamante def nañ ko am ci quarante virgule soixante et un milliards bu ñu déposé pour le moment nii nii nii ci cinq mois xama six mois ah wax dëgg yàlla bu ñu ko defee ci yeneen entreprise yi nga xam ne ñu ngi fi de di def des milliards de chiffres d'affaires moom yaakaar naa nañ ci gis en attendant de juger le dossier dans le fond le 7 novembre prochain le tribunal ordonne un sursis au recouvrement donc itam euh, tribunal daal dina jox ab sursis ci li nga xamante ni mooy recouvrement bi ñu war a def ci dossier boobu nga xamante ni moo ñeel euh, Woodside muy mbir moo mhm. xamante bu am solo la voilà donc euh, affaire Jérôme Bandiaky les derniers développements de l'enquête une perquisition hier euh, effectuée hier à Mbour loolee itam muy mbir boo xamante ni daal xew na ci euh, coowal ki nga xamante ni mooy sniper ba tax na mhm. rek euh, libération indi na ay détails ci li nga xamante ni moo moo xew ci ci ci enquête boobule mhm. mais fii aussi dafa am lu am am solo mu ni présumé faux et usage de faux autour du RIAN règlement intérieur Assemblée nationale la section de recherche entre en action maanaam li nga xamante ni mooy euh, règlement intérieur assemblée nationale bi ñu doon coow di naan euh, mhm. effectivement nañ déposer plainte faux usage de faux ainsi de suite section de recherche daal dina jël dossier bi mhm. donc nag fi mu toll nii dañu jàpp ni ci wàllum règlement intérieur assemblée nationale section de recerce jël na les détails jël na aussi mbir mi en main pour daal di doxal leeral lépp lu jëm ci wàllum euh, faux et usage de faux. loolu loolu lii nag lii. lii nag lii war war na dégg ay bravo ak félicitations te muy dëgg. parce que mhm. lii ñu ci bari man mi bokkoon naa ci ñi nga xam ne dañ doon wax ne vraiment jotoon na mhm. ñu ubbi enquête ci faux et usage de faux ga ñu fa doon wax ci mbiri règlement intérieur yi waaw ñu ñu xam yëf yi nu nu nu mu tëddee ku def ak ku deful loolu dafa war a leer parce que institution yu mel ni ay assemblée nationale dañu bokk ci institution <laughs> mais attends bu fekkee yow mii nga xam ne yaay voté loi <laughs> yow dëppoo ak yoon. Uh-huh. respecté woo loi boobee c' un problème pour man mm, c' est une entrave boo xam ne il faut le régler une bonne fois pour toutes. nga uh-huh. xamante ne yu ni mel dootul amati. vraiment en tout cas euh, nañ jàpp ne rek session de su duggee moom certainement léegi ñu am ci lu leer. Mm-hmm. loolu moom c' est et certain. on l' espère en tout cas que dina daal di leeral sénégalais yi parce que ñun ñëpp suñu bopp ëlëmu na ñun ñëpp jaxasoo nañu concernant effectivement règlement intérieur bi nga xam ne moo nekkoon fële ca assemblée nationale. Euh, Ousmane Sonko encore une fois waxtaan na itam ci li nga xamante ni mooy port vestimentaire yi euh, waxtaan waxtaanaat tamit ci euh, li nga xam ne mooy arrêté bi loolu libération daal di koy indiwaat ci li nga xam ne mooy xëtam bu njëkk ñu dem. Mhm. laas ñëw nag wax ci ATEL ATEL manifestation pour la transparence de législatives à la place de la nation le 27 septembre donc nag mu ngi nii li nga xamante ni loolu la atel bëgg ñoom date date 27 bi. 27 seen date la ñoom ñoo ko moom wala. <laughs> ala ala date kii date waa ah. ñële. en tout cas 27 bi mu coïncider ak 27 waaw. wala ñële dañoo dañoo bàyyi seen bos. Euh, internet yi ngeen ma dimbali laajal ma ñële waa kii waa Pastef ak waa coalition Diomaye président ak ñoom seen. Hmm. ndax danoo bàyyi est-ce que loolu sax du Pastef sax parce que. est-ce dañoo bàyyi datu datu 27 bi wala ñii dañoo jël seenu dat. ah en tout cas parce que organiser dina jafe pour que ñoom itam ñu organiser de. xaw ma nag ban dëkk lañ koy organiser en tout cas. Sénégal a ngi noonu ñoo ko bokk wàllam rek ñu daal di <laughs> avancer coow bañ am waaw mm-hmm. coow bañ tout cas. waaw donc Diop mu ngi fi xëy bu ñëwee dina ma ci jox wax. agsi na mm-hmm. ay ca kon mu ngi baax. maintenant euh, Rix mortel à Kër mbay Fall Basse poignarde à mort son ami Diadji Dia. Mm-hmm. problème d'insécurité encore une fois de plus euh, keneen fële ca Kër Mbay Fall daal dina jam xaritam ba mu daal di ñàkk bakkanam ah. loolu itam mu nekk beneen info boo xamante ni daal nañ koy jot di ñaan yàlla rek teggil ñu nattu bile parce que insécurité quand même ça gagne du terrain au Sénégal et je pense que doon na mbir moo xamante ni war nañ see jóg euh, ci la muy gën a gaaw apporter des euh, solutions abus de confiance et détournement de fonds le frère Bopp elle le frère Bopp elle est veuve de son défunt des fois frère se à la barre à la barre donc nag mu ngi noonu mu nekk tamit wàllum koppar boo xamante ni ñoom ñu ngi si daal di xëccoo muy ab euh, beau frère ak euh, ay veuve frère am en tout cas yoo xamante ni dañuy daal di xëccoo loole nag yaakaar naa bëri na ci réew mi. ce mm. sera pas la première fois et je que ça soit la dernière fois mais on espère rek yoon dina def liggéeyam nga ko ci nekk daal daal di yem ca fa nga war a yem. législative anticipée le parti socialiste en quête d'alliés PS nag moom mu ngi jéem a ut ñu mu war a mën a àndal ci législative yi nga xam ne mu ngi ñëw ah, PS nag doon parti boo xamante ni fi mu toll nii la plupart déggatuñ leen woon mais dañ jàpp ne rek ñu ngi daal di ut ay alliés pour daal di préparer la nga xamante ni mooy ah, législative yi ñëw ñu dem. tribune yéene ñëw itam ah, wax ci li nga xam ne mooy élection yi 110 et mouvement politique lance un bouclier pour la transparence donc ñoom nag dañ ko daal di chiffrer wane ne am nañu doole. donc waaw am nañ 110 partis politiques. waaw am nañ 110 partis ak yu mouvement yu bokk ci biir. atel jërëjëf tribune te ca caabal ba ah, Bougane a nga ne Bougane nga ne ca cat wa Bougane bu ñëwee ca cat wa ak euh, Pape Djibril Fall Thierno Bocoum Thierno Bocoum Khalifa Ababacar Sall Ababacar Anta Babacar Ngom. Eh. du Mbow. sa xarita Ngom Abdou Mbow yi noonu keneen ki ci cat li. kii xàmmee moom de. dinaa si dellu si waat parce que am na eh, benn liste boo xamante ne sax Anta Babacar yow fësal na ko. d'accord d'accord 110 donc. donc 110 daal ñoo bokk ca atel mm. ñoom nag li ñuy exiger wax nañ ko tout li ñuy prévoir itam wax nañ ko tout à Euh, ñuy xaar rek le 27 ban taxawaay la ñuy am ci réew mi le 27 naka lay demee ban ngoon lay doon mais en tout cas nañ jàpp ni rek fi mu toll nii daal euh, ñoom atel euh, am nañu doole parce que 110 parti la ak i mouvement. Mm-hmm. ñoo bokk li nga xam ne mooy atel. Mm-hmm. ba tax na rek pare nañu pour àndandoo ndaxam nag àndandoo bi ci. Euh, organisation euh, méthode d'organisation lay yem wala boog dañuy dem ba législatif dans tous les cas loolu dinañ ci gën a xam ay ay ay ay détails justice nomination cherté de la vie zoom sur des promesses non tenues par Diomaye donc nag ñoom jàpp nañu ne à cinq ou six mois de gouvernance euh, Diomaye daal dina am ay yoo xam ne teniru ko quoi donc nag loolu mooy ni nga xamante ni gis nañu ko euh, ci li nga xam ne mooy doxalinu moom Bassirou Diomaye Faye <laughs> Magaye Gaye sur la situation économique du pays la dette du Sénégal est insoutenable donc nag Magaye Gaye daal di yëkkati ay kaddu ci li nga xamante ni mooy dette yi nga xam ne moom mhm. euh, kii Sénégal am na ko en tout cas concernant seen dette nee na dafa jàpp ni rek dafa insoutenable waaye ñuy fàttali ni rek rapport FMI bi euh, premier trimestre de l' année 2024 la maanaam janvier ba mars maintenant nag maintenant on a qu'à situer les responsabilités pour voir effectivement dette boobu noonu fan la jóge ak kan moo ko fi daal di indi ñu avancé Vox Populi yi ñëw wax ci li nga xamante ni mooy opposition bi lee wax itam ci sans dispartec mouvement yi nga xam ne moo bokk ci atel euh, wax itam ci li nga xam ne mooy seen manifestation beeg li nga xam ne ñu ngi koy waajal de manière générale fii ci Sénégal pour daal di taxaw temm jàkkaarloo ak ce jàkkaarloo avec ce nouveau Euh, l'état presse le pas concernant organisation euh, élection yi la mais suba itam ki nga xamante ni mooy le ministre de l'intérieur dina dajeek ñi nga xam ne ñooy acteurs politiques yi pour waxtaanee effectivement lu ñeel euh, wàllum élection yi la Maître Ngagne Demba Touré coordonnateur de la jeunesse patriotique du Sénégal que cela plaise ou non on va redresser ce pays on ne va céder à aucune forme de pression moom nag démb tenir na ab euh, conférence de presse fële ca Armatan moom mhm. maître Ngagne Demba Touré waxtaan ak gps waxtaan avec les jeunes patriotes du Sénégal euh, waxtaan itam ci taxawaay bi nga xamante ni am nañu ko mais itam expliquer li nga xamante ni mooy euh, seen méthode depuis que ñu jot li nga xam ne mooy pouvoir bi le ba tax na mu ne ce système est dans une posture de confrontation mais n'a pas encore cédé certains sont prêts à embrasser le embraser le pays pour défendre leurs intérêts effectivement doon nay kàddu yoo xam ne moom moo ko yëkkatil boppam na ñi nga ne ba tey ñu ngi taxaw temm pour yàq mm-hmm. li nga xam ne mooy doxalin réew mi te ko def bu laajee ñu taal réew mi dinañ ko def bu laajee ñu dugal réew mi seen situation itam dañ ko def donc na ñu ngi fi te yenn détails yi buñ ci dugg su ko defee rek bañ a may doole moom Ngagne euh, de rester rester vigilant cependant nous avons un pays debout am na itam lu mu yëkkati ci kàddu gisuma ko fii nee na moom il appelle à un débat public képp koo xamante ni bokk nga ci opposition bi bëgg am looy wax ci li nga xam ne mooy gouvernement bu yees bi moom pare na pour taxaw jàmmalo yu si débat d'idée chiffre par chiffre argument par argument idée par idée nii la ko waxee moom Ngagne Demba Touré loolee nag cité na nommément ki nga xamante ni mooy Pape Djibril Fall cité na nommément ki nga xam ne mooy Bougane Gueye Dany nee ak keneen ku mu mënti dooni tamit ndax moom jàppee na parce que mais loolu war man je que la démocratie vive tey des politiciens man je suis pas d'accord sur le fait que ma jël sama camion campagne taxaw ci kaw wax lu ma neex nit ñi tàccu nga avancé déedéet nañu imposer ay débat public yoo xamante ni les politiciens ñëw waxtaan avec des arguments qui ba nga xamante yow à la suite de ces arguments là tu pourras peut-être faire ton wala du genre affaire yu peut, prendre euh, initiative boobu organiser débat. absolument encore faudrait-il que ñoom ñu nangu ko. organiser euh, leen débat contradictoire ñu def débat public. Bougane naa ko daf leen a défier maanaam loolu défi la sax avec ses chroniques mais daf leen défier voilà moo amul benn problème pour loolu. mais nee na li mu bëgg mooy ñu bàyyi waxu kesew kesew bi mais na ñëw janoo ak moom waxtaan ci argument. loolooy dëgg. waaw donc nag loolu message bu mu gën a ñu dem ci beneen. Mhm. <laughs> sud sud quotidien ñëw wax tamit ci li nga xamante ni mooy. Euh, 30 mesures yi euh, le premier ministre avec le gouvernement jël pour euh, ubbite école bi l'État avance ses pions loolu mooy kàddu yi nga xamante ni moom daal le premier ministre daal dina koy euh, génne mooy mbir mi nga xam ne en tout cas le gouvernement daal na koy tëral ba tax na rek ñoom su quotidien jàpp nañu ne état bi mu ngi daal di teg ay jéego ci wàllum li nga xamante ni mooy ouverture école yi pour ñu mën ko amal dans de très bonnes conditions fii ci Sénégal jam Diamniadio un pôle urbain en pleine mutation l'équation des infrastructures encore sous-exploitées mooy infrastructure yi nga xam ne mu ngi nekk sous euh, la tutelle de ki nga xam ne mooy SOGIP yooyee nag mu bokk ci gare mm-hmm. des gros porteurs bokk ci marché d'intérêt national bokk ci Dakar Arena stade Maître Abdoulaye Wade Radisson Blu euh, yooyu yëpp nekk ay infrastructure yoo xam ne Sénégal perd na ci ay milliards et milliards mais malheureusement exploitation ba léegi dafa des ba tax na rek li ñuy woote mooy Sénégal yi mën a xam effectivement lañ fa mën a def mais surtout encore mhm. dem utiliser ko pour Sénégal mën cee gis boppam bu baax a baax ñu dem mhm. l'observateur itam ñëw wax ci Amadou Ba euh, la cible et l'énorme défi les raisons des attaques de PASTEF euh, et l'exigence de renouveau, les menaces pour le pouvoir et conséquence euh, conséquences sur son image. donc nag moom Amadou Ba dafa mel ni fi mu toll nii ñu ngi koy daal di attaqué en tout cas l' observateur moom loolu la jàpp dafa jàpp ne fi mu toll nii waa PASTEF ñuy daal di attaqué ki nga xamante ni mooy. Amadou Ba donc moom dañuy daal di tontu rek ki nga xam ne mooy euh, leaderu nouvelle responsabilité l'opposition satel à combattre les illégalités du processus électoral donc nag l'observateur jàpp na ne effectivement processus électoral bi baaxul euh, jaarul yoon ba tax na rek atel dañuy daal di attaquer boobu les mbir réduction des comptes le parti looloo neex loolu ci suuf ngay waaj a liir looloo neex voilà gisoo moo tax ma gaawal waaw waaw looloo neex fi ma toog nii non reddition des comptes. waaw le parquet financier transmet ses premiers ordres de pour poursuite judiciaire. wala hmm. ma bamtuwaat ko. baax na. le parquet financier. am jàkkaarloo. maanaam tënk ko ci wolof def ko ci wolof. waaw maanaam parquet financier bi nga xamante ni la ñu samp keroog. waaw yàggul dara daal di installer les juges et yi nga xam ne ñoo fa war a déférer. waaw jël na ay ordres de poursuite maanaam ñi ñu war a topp ndigal pour ñu topp ay nit. teg ko ci ñi nga xamante ni en tout cas mooy ñooñu leen nit mais permettre en tout cas aux autorités compétentes ñu daal di fekki nit ñi nga xamante ni cité nañ leen nommément ci yile dossier mhm. pour ñu daal di leen fekki fa ñu nekk andi leen ñu ñëw toog waxtaanee mbir mi donc fi ñu toll nii mën nañ jàpp ni mhm. reddition des comptes tàmbali na parquet euh, parquet financier bi commencé na topp ay nit mhm. donc loolu la ñu mën a jàpp ci mbir mi te ubbi nañu dossier yépp en uh, non du ma ne yëpp mais en tout cas ubbi nañu ay dossiers yi nga xamante ni tey jii nii fi mu toll nii jàpp nañu lépp yemm na. Mm-hmm. pour que ñu daal di mën a ànd àndandoo jàkkaarloo ak ñi nga xamante ni ñooy nit ñi nga xamante ni ciblé nañ leen. Mm-hmm. ci délinquance financière ak ya muy àndal ak ya muy àndal ya muy àndal. Mm-hmm. donc fi mu toll nii nañ jàpp ni dans quelques jours voire même dans quelques heures peut-être on ne sait pas encore. dinañu dégg ne diw ak diw convoqué nañ ko lieu à heure à l'heure ok donc loolu nag la ñu mën a jëlee ci bile euh, reddition des comptes cinq dossiers déjà ouverts donc fi mu toll di juróomi dossier tijji nañu ko mhm. fële ca parquet euh, financier donc mhm. loolu ñu mën a jàpp ci euh, mbir mi d'accord ñu dem Walf Quotidien législative ces autres adversaire de Pastef loolu nag xam naa bu ko liir rek di nga ko daal di fekk ci biir mhm. ñu dem ci 100 clubs depuis son départ du Bayern les deux touches de Bouna Sarr Bouna Sarr itam nekk un international international sénégalais. Mhm. ba tey nag amagul le club ba mu jugee fële ca Bayern euh, Munich. conseil interministériel waxtaan itam ci li nga xam ne mooy déficit de quatre mille cinq cent vingt sept enseignants signalés. donc actuellement au Sénégal mu ngi fon euh, éducation mu ngi fonctionner avec moins de quatre mille cinq cent vingt sept euh, enseignants yoo xamante ni fi mu toll nii nii nii dañ leen war a compléter te ba tey amaguñu fu ñu leen fu ñu leen jëlee donc loolu itam mu nekk beneen problème ñu dem. enquête yéen kaay le Sénégal face à la tyrannie du FMI FMI nag euh, yàggul dara mooy li may wax tout à rek dégg nañu euh, li nga xam ne mooy rapport FMI bi mu génnee la mu wax ci finance publique yi fi mu toll la mu wax ci endettement bi fi mu toll ak yeneen yu nu mel donc nag fi mu toll nii daal euh, doon mbir boo xamante ni am na solo lool fii ci réewum Sénégal Sénégal en confronté à une dette écrasante limitant sa capacité à s'affranchir des bailleurs internationaux. Mhm. mu ngi noonu euh, trafic de faux médicaments et devises 620 millions de francs CFA saisis par, la douane donc mhm. loolu mooy li nga xam ne yëkkati nañ ko tout à l'heure comme euh, kaddu. mu mhm. am nag benn kii boo xam ne taarix nañ ko pour euh, force tranquille et puissance spirituelle <laughs> bu grand Alpha Ibrahima Wan loolu ku ko lii rek di nga ko fekk ci enquête yéen kaay ñu dem. record pour sport ñëw waxtaanee li nga xam ne mooy CAN Beach Soccer 2024 tirage des poules Sénégal avec Mauritanie euh, Mozambique et Malawi. les so valident leur ticket pour les demi donc nag gannaaw bu ñu fubalee démb ñoom lionceaux yi daal dinañ dem fële ca demi-finale ci euh, li nga xam mooy euh, tournoi UFOA bu AD U deux mille U20 bi. Mhm. Gambie Sénégal daal dinañ ko dóor daal di euh, gagné match boobu nga xamante ne lu ko lañ nekkoon ci biir. Lamine Camara estima baptême de feu réussi démb nag ñu def ay match yu am am solo moom Lamine Camara ak ki nga xam ne mooy Sima. ah Odia Ngok. ñu jeexal nag. ak Odia Odia. kay. Odia Ngok. Odia Ngok de. waaw Odia moom ñu nekk ci géej gi ak ñenn ñuy ci nii ci biti. ñu nekk ci géej gi di bari te ñaar lañu bizarre quoi. waaw yow kii du Diomaye Sonko. ay waay Joms man Sonko man mbaxane yi ñuy Sonko moo war a métti xanaa mbaxane bi. Oja. Diomaye mooy Sonko et vice versa. xanaa ñee moom ñooy cent dix personnes yi. Sonko ñoom kii ñoom ah waaye te moo nekk ci kanam ñu téye buub bi. Oh, petit mën la ngoog. petit mën la ngoog. car ça promet avec Sonko mooy Diomaye. ça promet Drou. ça pagaille. sa pagaille ah ça <laughs> ba tey neexul avec Sonko mooy Diomaye. nous le pays à bon port ñii moom waa Atel la. ñii waa ak mouvement yi. waa ji moom xàmmee ngeen ko borom lu bële. borom lu bële kenn xanaa mooy bugaat. kii kay mooy Bux. <laughs> kii mooy Bux Bux Bani. <laughs> yàlla bëri na suñu en tout cas ñoom ñu ngi dem léegi nag euh, saaraam à contre euh, courant donc dañuy jàpp ne rek fi mu toll nii ñoom ñu ngi dem ñii ñu ngi xëcc. <laughs> kan moo ci am doole kan moo ci xëcc on ne pas encore mais nañu jàpp ne rek fi mu toll nii lii mooy situation politique du Sénégal pour préparer la nga xam ne mooy législative yi ne. di leen gërëm di leen sant. jërëjëf euh, gërëm nañ la sant de bu baax a baax a baax Fary. à mm-hmm. demain incha allah merci beaucoup pour cette bu baax a baax ñaanal yàlla wéral la. et puis lafal euh, la cat bàyyi la nga yeggale ak sa sago c'est ça la relève de demain la jeune génération là euh, bi nga xam ne macha allah en termes de professionnalisme am nañu ci ba mu.